أزاري ملاسي أرجو برحمتي الله لا يضر أن منك يا الله مليك يميني وعقل بزار يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا سيار سوني سرين سوني واجور دي سيار سي سونو سرين sunu wayjur. Baye Ahmadou Mokhtar. Baye Ahmadou Mokhtar. ci ni ko sëñ Moustapha baaxoo defee. ci ni ko sëriñ Moustapha Mati Lay baaxoo defee. bis bi saa su agsee. bis bi saa su egsee. mu ànd ak njaboot gi yëpp ñëw. mu ànd ak njaboot gi yëpp ñëw. su ñëpp ñëwul itam. bu ñëpp ñëwul itam. ñu xool bopp kër yi nga xam ne am nañu jot mën a ñëw. ñu xool bopp kër yi nga xam ne. am nañu jot mën a ñëw. mu ànd ak ñoom ñëw ci yow siyaar si la mu ànd ak ñoom ñëw ci yow siyaar si la. ànd ak ñoom ñëpp ànd ñëw fi yow siyaar si la. fedd li nga xam ne moo dox seen diggante. fedd li nga xam ne moo dox seen diggante. muy kilifteef gi. muy kilifteef gi. ak taalibe gi nga xam ne moo war seen diggante. ak taalibe gi nga xam ne moo war seen diggante. ak waajur gi itam. ak waajur gi. ñett yooyu yëpp nag mat naa jafe naa matale. nee na yett yooyu yëpp nag jafe naa matale. waaye nga ñaanal ko yàlla. waaye nga ñaanal ko yàlla. ba ñett yooyu yëpp mu mën koo matale. ba ñett yooyu yëpp mu man koo matale. moo tax mu defee ko ni ko mag ñi daan defee. moo tax mu defee ko na ko mag ñi daan defee. ànd ak waa kër sëñ Baar yi. ànd ak waa kër sëñ Baar yëpp. xam naa sëñ Abdou Karim ngi nii. sëñ Abdul Karim Mbacke ngi nii. di xalifa sëñ Abdou Aziz Baara. di xalifa sëñ Abdou Aziz Baara. ànd ak lenn ci ay rakam. ànd ak lenn ci ay rakam. sëriñ Moudou Ablaye ngi nii itam. sëriñ Moudou Ablaye ngi nii. sëriñ Lamine yabal ko mu sëñ Bass Khoudia. sëriñ Lamine sëriñ Lamine mu sëñ Bass Khoudia yabal ko. ndax ngant. ndax ngant. mu ànd ak ay rakkam moom it. mu ànd ak ay rakkam moom it. sëriñ sëñ Baara Abdul Karim ma nga ne. sëriñ Baara Abdul Karim ma nga ne. di imaam guy mbind. di imaam yi guy mbind. ànd ak ay rakkam moom itam. ànd ak ay rakkam moom it. sëriñ Xaadim moom sëriñ Mustahin. sëriñ Xaadim moom sëriñ Mustahin Baara moom it. moom it kasaalika ànd ak ay rakkam. moom it kasaalika ànd ak ay rakkam. sëriñ Abdul Aziz Abo mi ngi nii. moom itam ñëw ànd ak njaboot ga. moom it ñëw ànd ak njaboot ga. Serigne Baara Lahat mi ngi nii. Serigne Baara Lahat mi ngi nii. teewal fi boppam ak sëñ Modou Baara may xalifa ba. moom teewal fi boppam teewal fa sëñ Modou Baara may xalifa ba. mi xalifa sëñ Laat Baara. mi xalifa sëñ Laat Baara. Serigne Modou Baara moom it ñëw na fi. moom sëñ moom it ñëw na.

maam Baara suñu doom doom sëñ Moussa Abdou Aziz. ak maam Baara moom sëñ Moussa Abdou Aziz. ña ñëpp nga xam ak ña gannaaw ñëpp bu nee ñëpp rek ñëw nañ kon guy mel ni yëpp ñëw nañ. famille ba yëpp kàr macha allah. ñëw di feddali si rek. sëñ Moustapha ñëw di feddali li mu nee na sëñ Moustapha Matiley mii jëwriñu sëñ Mouhamadou Lamine Baara di sa jëwriñ ñëw di feddali si. nga xam ne li ma nga tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ak Cheikh la nga xam ne ma nga tàmbalee woon ca diggante Cheikh Moustapha ak Serigne Baara. muy muy dox di rafet. muy dox di rafet. ba agsi ci yow ak Cheikh Sidi Mokhtar. ba agsi yow ak Cheikh Sidi nga joxoon ko sa lépp. nga joxoon ko sa lépp. te dara desu ci woon te dara desu ci woon. foo a féete nga féete ko. nee na fépp foo ko waroon a féete féete woon nga ko fa. ba yàlla dogal mu dellu ci boroomam. Serigne Moustapha ñëw ànd ak ak njaboot gi. yeesal loolee. yeesal si loolee. nga jàppal ko ko. nga téyal ko ko. xelam dal lool ci yow. xelam dal lool ci yow. ndax yëg gi. ak jàpp gi. ak safoo gi. ak safoo gi. bàyyi gi nga ko bàyyi xel ak bàyyi gi nga ko bàyyi xel. loolu dal xelam lool. loolu dal na xelam lool. dal xelu njaboot gi. dal xelu njaboot gi. kon mi ngi ñaan yàlla suñu borom. kon mu ngi ñaan yàlla suñu borom. mi nga xam ne dara rëtuwu ko. mu bàyyi la fi. mu bàyyi la fi. ànd ku wér. ànd ku wér. nga yàgg ci suñ kanam. nga yàgg ci suñ kanam. yàgg jiite liggéey bi. yàgg jiite liggéey bi. ba nga defee ko na nga ko bëggee. bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maxdumi seyxina muy muy seere itam nag. muy seere it. njaboot gi nga xam ne njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine. njaboot gi nga xam ne mooy njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. te muy seen njaboot. te muy seen njaboot. moom mu nekk leen ci seen biir. moom mu nekk leen fa ñoom ci seen biir. mu ngi lay seeral sant yu leen sant. mi ngi lay seeral nag ne sant na leen. ak gërëm la itam. gërëm na leen. ndax jàpp guñ ko jàpp. ndax jàpp guñ ko jàpp. ak yëg guñ ko yëg. ak yëg guñ ko yëg. saa suñu déggee kàddoom. saa suñuy déggee kàddoom. lépp lu waay nekkoon. lépp lu waay nekkoon. da ko bàyyi da nga ko bàyyi. ñëw ci lim bëgg ñëw ci lim bëgg. ba mu noppi ci yow ba mu noppi ci yow. kon mi ngi la koy seereel. nee na mi ngi la koy seereel. waaye njaboot gi la seereel melokaanam moom. nee na njaboot gi ñu ngi lay seereel melokaanam moom. moom Cheikh Moustapha mii moom Tiley amul lenn lu muy def. ndax amul lenn lu muy def. mbaa mu koy yëkkati. mbaa mu koy yëkkati. te wootul njaboot gi ba ñu ñëw. te woowul njaboot gi ba ñu ñëw. mu waxtaane ko ak ñoom mu waxtaane ko ak ñoom. luñ ca dogal luñ ca dogal. mu neex ko mu neex ko. kon mi ngi njaboot gaa lool ci moom itam. nee na njaboot gii ci gannaaw mi ñu ngi lay seereel ci moom mii lool yi. sakku nga ñaanal ko bu baax di sakku nag nga ñaanal ko. yan bi diis na. yan bi diis na. waaye kuñ téeñal téeñal. dina xaw woyof dana woyof toy kon loolu yi ñu ngi koy sàkku ci yow nga ñaanal ko ko defal ko ko. ñu ngi siyaar ci bis bu sell bii nee nañ lay siyaare ci bis bu tedd bu sell bii. nga xam ne mooy bis bi gënaloon sëriñ bi. moo ko bindal boppam. ndax moo ko bindal boppam. ñaan boroomam. ñaan boroomam. ne ko nag ma defal. ne ko ma defal. bis bi gën ci samay bis. bis bi gën ci samay bis. muy bis bi may dellusi ci yow. kon kon mooy bis bii. bisu ngëneel la. nga xam ne bisu ngëneel la. bisu tawféex. bisu tawféex la. bisu njëggal la. bisu njëggal la. ni ko Cheikh Moustapha waxee woon. na ko Cheikh Moustapha waxee woon. képp koo xam ne fanaan nga fi. képp koo xam ne fanaan nga fi. ba bët set. ba bët set. màggal màggal gi. màggal màggal gi. ca na mu ko santaanee. da nga set wecc ci na bis ba nga gënee woon àdduna kon bis boobu la kon bis boobu bis gënu koo rëy bis gënu koo rëy bis gënu koo màgg bis gënu koo màgg kon sëriñ Moustapha mi ngi la ciy siyaare bu baax di sant bu baax di gërëm di sant bu baax di gërëm di wax ne xelam dal na lool macha allah ci yow mi ngi sant it nag sa njabootu bopp gii sëñ Ousmane mii ak mboolem yi fi nekk yëpp sëriñ Guèye mii moom sëñ Aliou jokkale bi mat na taxawaayam rafet na rafet na bu baax baax. te loolu rek moo baax te loolu rek moo baax. ndax ñaari kër yi du ñaari kër. ndax ñaari kër yi kat du ñaari kër. yàlla barkeel. yàlla barkeel. te am na loo xam ne. te am na loo xam ne. dafay diis ci jënn jëmm. dafay diis ci jënn jëmm. moo tax sëriñ bi sàkku ci suñu borom. moo tax sëriñ bi sàkku ci mu def Cheikh Moustapha mu def Cheikh Moustapha. def Cheikh Mouhamadou Lamine kenn ku nekk am loo yor. waaye bu lépp dajoon ci jënn jëmm. dana diis ci jëmm ja. nee loolu rek mooy Cheikh Moustapha sëriñ Bara ñaari ngàddi guro lañu rek di benn doom fas yéene nag. ñu fas yéene nag. mu fas yéene. mu fas moom mii. Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha Mati lay fas yéene. bay waaram. nag moom. ba lépp gën a. ba lépp mel nañ ko bëggee. gën a dëgër loolu mooy yittee mooy bëgg-bëggam. muy wax itam ne. lépp looy liggéeylu. lépp loo xam ne yaa ngi koy liggéeylu. mbaa nga koy deflu. mbaa ko jëkkee ci moom loolu daal nee na mu ngi koy sàkk mu ngi sa ndigal mi ngi say loxo rek mi ngi jégg lu baax ci kàddu yi moom Cheikh si Amadou Mokhtar Mbacke nee na mi ngi nuyu Serigne Moustapha Mbacke ak bokk yi mu àndal yëpp. muy biir guy muy waa guy mbind. nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. ci seen taxawaay ak seenu doxaliin. nee na xam nan bu baax ne. li fi mag ñi bàyyi woon. yéen a ngi koy dundal na mu gëne. yéen a ngi koy dundal na mu gëne. bég naa ci. ngeen seere ne bég na ci yéen. képp ku jabootoo ci Daaru Xudus wala guy mbind it bég na ci seenu doxin. nee na mi ngi leen di ñaanal ci yàlla suñu boroom. doxalin wii yàgg. tey gën a dëgër. ba faw bég nañ ci yéen. sëriñ bi nee na bég na ci yéen de. ndax yaari kër yi. ndax la. fedd li ngeen ko bu baax. fedd li ngeen ko bu baax. xew wu mën a am rek. xew wu mën a am. wax ko ak lépp lu man a am ci kër gi rek wax ngeen ne feeñal ngeen ne benn kër la. kër gi ngeen fekk kon nag kër gi ngeen fekk si. du yaari kër sax du seen kër a. waaye loolu fekk nee na kër gi ngeen fekk si it ñoom it noonu yi rek lay nekkee. buñ ko waxee ko waxut. buñ ko waxee ak buñ ko waxut it loolu moo ne ci xel yi moom lañ jëfee. nee na loolu day sax loo xam ne daa daaru daa guy mbind ak daaru xudus ci loolu lañ juddu. nee na du lu mën a yàqu. alhamdulilah nee na yàlla def na ko ba noppi noppi na ca. nee na mi ngi ñaan rek muy gën a dëgër. di gën a sax. sëriñ Ahmadou Moukhtar nee na mi ngi leen di sant sëñ Moustapha yaak njaboot gi leen gërëm di leen xamal ne xolom sedd na bu baax ci yéen bokk si bokk yi ngeen fekk si it ñoom it ñoom bég nañ ci lool seen xol sedd na nee daal li mooy ñaan mu yàgg rek sax dakk mu ne sëñ Moustapha mii nag li sëñ seex Thioro wax ci moom nii nee na mi ngi seere ne wax ju wér la wax ju wér la ñëpp xam nañ loolu ci moom nee na moom lañ xam ci sëñ Moustapha mii aw doxaliinam rafet na lool lool lool nee na ñi mu àndal ñëpp ndegam bala moo def dara diisoo ak ñoom kon daa mel ne noonu nii muy rafet rafet yéen ñi la ko àndal yéen ko ànd ak moom mu rafete noonu nii. kon maase na li leen sant yéen ñëpp di leen gërëm. di leen xamal ne nu it fas san ci yéenee nekk. sax ci ba faw noo ngi sant di leen gërëm. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi wa yàgg ci